waa ji séen ko rek tapet yooyu xam nga rek mu baaxu rek tuub Omar ne ko lu waral lii mu ne ko ah, bëgg a tuub rek ak ragal bil hazawaati jaasiya mu tax Sayyiduna Muhammad ñeenti saxaaba yi ko daroon ñoo ngi noonu tey ñu doon waxtaanee Omar ibnu Xattaab du ñu ko guddal loon ndax toogaay bu yàgg yan nañu yàlla defal jàmm. defal ko bépp mboolam jullit yàlla sàmm ñu sàmm bépp mboolam jullit ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa di sang bi di tàmbali léegi moo ngi leen di wax ci ci fa tabarakallahu jërëjëf ci yenn yi te Seydi Hadji Malick ci lu am solo mooy iza kunta za maalin wa anta mahbubun wa hawluka maqbulun wa hukmuka aadil Seydi Hadj Malick moo yéeme xoolal ba mu ko bindee Maodo nee na jamono ngi ñëw isa kunta ndem nekk nga za maalin ngay borom alal moo tax sang bi wax la sànq wilaya alal za ngay borom alal wa anta yow mahbubul ku ñuy sopp nga waaw Maodo ko wax de mu ne boo doonee borom alal dañ lay sopp wa qawluka maqbulun looy wax balaa ngaa yëkkali ñu ne wax na dëgg loolay li am mu ne ñoo lay yeggalil say wax yow. mu ne waaye isa kunta za hammi wa diiqin wa siddatin wa xawluka mardudun wa xukmuka baatil si daaj Malick nee na boo amul dara xam nga alaaji ibrahima saabu day wax ni ñàkk yomb na saabu moo koy wax mu ne waaye ñàkk ba poos boo làmb doo ca fekk dara foo dencul nga di ko seetaat mu ne foofu la ñàkk yem mu ne boo melee noona si daj Malick nee na boo melee noonu jamono tar ci yow boos boo jëm doo fa fekk dara bu ñaari ponkal jàppoo sa bopp ak sa tànk yi ñu wañ la comme yére dërëm du sotteeku Maodo nee na boo boobaa loo wax mar duudu sa wax du am njëriñ ci kër gi boo duggee ci yenn kër yi léegi ki ci gën a doon xale magam moo ngi ci kër gi mais xale bee ëpp la xaalis mooy mujjee yilif kër gi Seydi Hadji Malick nee na loola dana am ci bi mu wax mu gën maa frappé sama kàddu mooy jëllul wara fii maa yuqarribuhum min xadrati dawli la min xadrati diin Maodo neen di ngeen dem ba jamono am ñuy jàng pour jege nguur waaye kenn du jàngate pour doon iliman jàkkee dana raaf. qad hamma jullul wara fii maa yuqarribuhum min xadrati dawli la min xadrati diin Maodo nee na di ngeen dem ba itam xallu madarisa ahlullahi école yàlla yi ara arab yi daara yi lépp yu wéet kenn du jàng ji wantalawu madarisul kufri école tubaab yi ñu feesal ko dell si xaj Maalik ka xam jamono loolu ba mu koy bind kañ la ak kañ la génn àdduna mu ne dinañ dem ba feesal école tubaab yi bàyyi école yàlla yi koo gis nag li tax muy feesal école tubaab yi moo ngi yaakaar toogu ji biiram Maodo nee na kenn jàngatul pour doon imam wala doon jàngalekat pour dimbali nit ñi ci diine ji beneen bi ci topp rek mooy wàllu soxna yi. man ñii célibataire ba heure bi ba ñu yokk mbir yi yéen a ko def yàgg ngeen fi mbir yi kenn yokkuwu ko ngeen yeexantu rek yërëm naa leen léegi nag yokkeeku na waaw da ngeen doon taaxil lu acca taaxil lu leen yal na yàlla def jàmm ci barke Sayyidina Muhammad sant bi nga baal ñu xàq ñu yemale kàddu yi foofu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw kay dafa mel ni. liñ bëggoon yëpp waxal nañu muxtaaru gee des na jeexagul bu ko defee liñ ciy teg ñaari yëf la rek moo di li mu wax ci Seydina Omar ñun dégg nañ ñaar yi ma ci indi mooy réforme yi nga xam ne def na ko ci diine bari na waaye bokk na ci bii ñu doon wax dama ko doon métit lu muy wàllu sëy ndax bi muy jot ci xilaafa bi te daf ci yàgg ndax ni mu ci toog benn saxaaba toog Seydina Abubakar ñaari at la toog Seydina Ousmane jàppatuma waaye est-ce que ñetti at wala ñeenti at ñeenti fukki at ak ñeenti weer Ali ak na jàppoon mu ci toog ñett ak ñeenti at weesu wu ko li ma la bëgg wax daal mooy Seydina Omar moo ëpp lu mu dox ci xilaafa gi ndax toog na ci fukki ak 10 ans 4 mois 10 mois 4 jours moom la ci toog kon moo ci gën a yàgg bi muy toog boobu la fekk l'islam bi neex mu neex gi mooy Seydina Abubakar taal na jihaad ginnaaw yonent bi ndax ñu bañoon joxe azaka Seydina Omar ñëw feddali ko ba toj Ruum ba toj Palestine gi masjidul Aqsa Seydina Omar moo fa njëkk a julli juma am ku jiital ci saxaaba yi toog déglu xutba bi loolu Seydina Omar moom la ko yàlla baaxee masjidul Aqsa bi moo xeex ba yegg fa julli fa juma keroog jiitewul na dafa am ku jiital moom toog déglu xutba bi muy xutba yi daf ko ne bi luxatil arabiya laa bi suraniya te boobu ñi muy wax waxal ñëpp kenn déggu ci arab waaye daf ko ne bul bul waa bul xutba lu dul ci la diine soxla woon xanaa boobu wax ko waxal ci beneen langue te ki doon xutba dégg na suraniya Seydina Omar dégg na suraniya ci biir masjidul aqsa te gan lañ waaye daf ko ne bi luxatil arabiya laa bi luxatil suraniya wala Ibra te Ibra yàggul suuraani ya dañ doon def yàlla def mu réussir loolu moom Seydina Omar takk gi bari fase gi bari comme nii takk fase takk fase takk fase takk fase mu décrété na ne képp ko waxati sa jabar may naa la sa baat rek ñetti fase loolu Seydina Omar ko indi ci lislaam waaw te si bi waxoon ne asxaab yi ka nujuumi zayyihimu iqtadaytum ihtadaytum sama saxaaba yi comme ay vidéo bu ngeen ci topp rek jub te moo ku wuuteeg sama saxaaba yi wuute nga ak man ci la décrété ne képp ku jàkkaarloo teg sa soxna ne ko fase naa la ñetti fase da nga réew rek wala fukki fase da nga réew rek ñett lañ koy jàppe xam nga léeg-léeg nga gis ko soxnaam fase naa la téeméeri fii naa moom boo ko waxee sa soxna da nga réew rek ñetti fase lañ koy considéré baada zawja pour yar nit ñi mu ne képp koo xati sa jabar ne sa soxna ne ko hablu ko ala raqabatika mooy may naa la sa baat mu ne ñetti fase baada zawji rek mag ñëpp moom la ñu adopté Cheikh Sidi Ahmad Tijaani moom la adopté Cheikh Abdul Xaadir Jilaani moom la adopté Imam Malik mu mag mag moom la adopté Cheikh Ahmad Bamba moom la adopté les Cheikh Limaamu Laay moom la adopté ñu bees ñi rek ñoo ko adopté woon ñu bees ñi rek te la sëñ Koso Gànnaar waxoon rek moo ci gàmmu gi bii la ko waxee woon réew mi séddoo nañ ko ba ñii murit murit rek ba bés bay ñii tijaan tijaan rek ba bés bay ñii xaadir xaadir rek ba bés bay ñii laayeen laayeen rek ba bés bay ñii ndi coow mooy ñu mujj ñëw te amuñ fu ñu installé ñooñu nag ku doon ku ko nangu rek yow suñu yoon na ñun tudd ñu kenn sëñ ko sa gànnaar it moo wax waaw lii waaw Jérusalem Jérusalem jullit ñee ko moom ñoo ci gën a yeey donte nag place yëpp waaye ndax boo demee yoon yonent yàlla Suleymaan moo tabax jumaa yoon ci yàlla musa jaar na fa yonent yàlla Ibrahima dem na fa yonent yàlla Yuusufa ñu ngi ko fa suul ci biir jàkka ji rek ñetti téeméeri yonentam fa ci biir jàkka ji yuñ xamul fan lañ leen suul ñetti téeméeri yonent ñu ngi ci biir jàkka ji trois cent li ko wër junni ak juróomi téeméeri yonent ñu ngi fa li wër masjidul aqsa te kenn xamul fi ñu leen lay moo tax yàlla ne subhaana allazi asri bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa mooy Jérusalem alladi barakna hawlahu alladi barakna hawlahu ndax waxul barakna lil masjid alladi barakna hawlahu ndax yónni ci yëpp lu tax li nuriyahu min ayatina ah. dana ko woon yonent ah. moo tax mu fekk leen fa parce que la majorité parti bi yëpp fa lañ nekk ah, ñaara tax yonent bi dem fa ñi ëpp ci yonent yi fa lañ tëdd cent vingt quatre mille prophètes yi yàlla yónni yëpp ñi ci ëpp fa lañ tëdd bi ci des fa la buntu asamaan ubbi ko te yonent bi sañul bët faw ci bunt bi lay jaar asamaan buntu bi mu ak ci masjidul aqsa ci xubba bi moo tax yàlla santoon yónni yàlla Souleymane pour mu tabax bi ji ba mu ko ko tab ba mu ko ko santee liggéey bi jafe yónni yàlla Souleymane ne ko may ma jinne yi yaa leen yilif ñu dimbale ma ci tabax bi te yàlla def ko santoon ne ko xubba bi nang ko def or yónni yàlla Souleymane faatoo lañ ko sànc mais or la loolu dem leen ci histoire yéen ñi jàng tubaab ngeen vérifier c'est vérifiable et c'est palpable lépp or la woon ci la yonent ci yàlla jox ndigal yonent ci yàlla Suleymaan ne ko jox naa jinne yi ñu tabaxal la ko jàng ngeen ko ci alxuraan ma euh, nu mu ko waxee ni wa ma dallahum ala mawtihi illa ala mawtihi min saatahu fa lamma xarra tabayyanat al-jinnu annahum law kaanu ya'lamuna al-ghayba ma labisu min adabin muhin min adabin muhin yéen ci yàlla Souleymane tabax jàkka ji ba mu ne ràcc kenn wuñ xuba bi du or xuba bi du or gis nga. yooyu léeg-léeg nga dégg ñu ne dafa xaram ak ko ko sant moo tax jumaa jooju or lañ xoobee woon xubba bi yépp yor ci yàlla Suleymaan jinne yi ñoo doon nuur ci biir géej gi di ko génne xam nga jinne du sonn nekkete li yonent yàlla Suleymaan sukkandiku ci yet bi di leen xool ñuy liggéey dañ doon liggéey midi matin soir ku sonn sa morom remplacé la te ñoom coono yomb leen midi matin soir liggéey bi dem na 40 jours ñeent fukki fan non stop ñeent fukki fan non stop ñeent fukki fan taxawuñ ndekete yàlla faat na yoon ci yàlla Suleymaan te yëguñu ko mu sukkootu ci yet wi rek di leen xool ne bokk bët yi di leen xool pour moom mu ngi leen di surveiller ndeke faatu na bu yàgg 40 jours ñuy liggéey rek di liggéey ba jumaa ji yàgg ñu gis yoon ci yàlla Suleymaan réagir comme jinne yi ñeme wuñ ko woon benn jinne ne morom kii dunda bi waaw yéen ko yaa keneen ki ko yaa ko ñemee wax <laughs> su lay dégg su lay dégg dana la mbugal ni mu mbugalee woon ni mu mbugalee woon bëggoon na mbugalee bët bët yow yaay wax de man waxuma de waaja noppi mooy ci mooy jinne ji gënoon mag yëlif leen ñu toog dix jours après beneen jinne jógee ci géej gi ne leen yonent yàlla Suleymaan dund ñu ne ko yow yaa ko ñemee wax gaawal nuuraat ci biir géej gi wala déggee nga dee biñ demee ba mu des cinq jours ndekete dix jours yu mujj yi yàlla yebal na max daabbatun minal ardi jooju mooy max taakulu mu lekk min sa atu bu yetam man alquran laay wax fa lamma xarra bi mu lekkee yet wi ba yegg si fi Souleymane téye yet wi mokk rek yonent yàlla Souleymane daal moo tax mu ne fa lamma xarra ba mu daanoo te bayyanati leer na ne an law yaalamuuna al xayba bu jinne yi xamoon xayba maa labisu duñ sax ba fi adaabin muhiin ci mbugal mu doyee di ñi ki leen di surveiller dee na bu yàgg te xamul moo tax buñ la naan jinne xam na xëy bu jinne daa xam dara nit a ëpp xam-xam jinne foofu du benn sax looloo lay wan li la koy wan yónnante jinne amul yàlla nit la jël yónni ko ci jinne kon jinne moo ëpp xam-xam nit jinne daf ko gën a gaaw rek waaye nit moo ëpp xam-xam jinne moo tax yàlla jël nit yónni ko ci jinne waaye yónnante jinne amul yonent yëpp am nañ taalibey jinne suñ sëriñ ñi yëpp am nañ taalibey jinne waaye amul benn jinne bu am taalibe nit amul jinne bu fàdd nit noot ko moo kon ñun nañ gëm suñu bopp bàyyi xel suñu mag ñi ñu am mag ñooñu ñëpp ngir yi fi nekk yëpp ci senegal laa wax ngiru tariqa tijaan tariqa tijaan mu ngi sukkandiku ay mbiram ak ngiram ci imam malik imam malik mu ngi sukkandiku ngiram ci Seydina Omar tariqa maam borom Touba mu ngi sukkandiku ay mbiram ak mbindam ci ngiru imam malik imam malik mu ngi sukkandiku ci ngir ci jàngale Seydina Omar limaamu laay kadalika maam bu bu gën a jaataan kadalika Cheikh Abdul Qadir Jilani kadalika ñeenti école yi moom am donte nag ëpp na ko waaye yii la yonent bi waxoon ne ku ci sukkandiku sa lislaam wér na waaye ku ci sukkandiku sa lislaam nag sa lislaam wóolu ñu ne ko ban ak ban mu ne imam Malik dana fi ñëw dana am ñeenti taalibe Hanbal Hanafi Malik ak Shafi te ñëpp imam Malik ay seen maam ndax moo leen jur fu mu ci jàngalul moo jàngal kala jàngal ku ci imam Malik jàngalu rek moo jàngal ki la jàngal imam Anbal ngiram mu ngi ko sos ci Seydina Aboubacar Abou Hanafi ngiram mu ngi ko sos ci njàngaleem Seydina Ousmane Malik ngiram mu ngi sos ci njàngaleem Omar ibnu Khattab Seydina Omar mu ngi ci njàngaleem Seydina Ali ibnu ibnu eh, ibnu Abi Talib te ku ci nekk am na lu tax nga sis ku ci mooy li ngeen dégg Serigne Mansour borom daara ji daan wax ci fase woon jabaram ñëw ci Seydina Aboubacar mu ne ko lu mu ko waxati yii nun mi na dahri yow tey nga dee téeméeri at sax lu tax nga mën a jotaat ci soxna si mu ñëw ci Seydina Omar lu mu ko waxoon 40 jours bu la neexee boo nga fayliwaat sa jabar mu ñëw ci Seydina Ousmane Seydina Ousmane ne ko une semaine mu ñëw ci Seydina Ali mu ne ko bu la neexee boo añee bu ngoonee nga jëlee sa bu la neexee nga jël léegi bu la neexee nga bàyyi ba añ boo sawaree dem jëli sa jabar yonent bi woo leen ne leen fu ngeen ko teg Seydina Abubakar ne ko eh, hiinun min ad-dahri laa ko teg Seydina Ousmane ne ko nakaati eh, at ku ne am na foo ko teg waaw fa kaanat fa lawlaa kaanat qaryatan aaminatan mutma'innatan fa nafa'ahaa iimaanuhaa illaa qawma yuunusa falammaa aamanuu kashafnaa anhumul azaabal xizyi fil hayaati dunyaa wa mata'naahum ilaa hiinin hiinin jooju la ko teg kii teg ko ci hiin ñi nga xam ne. hal ataa ala al insani xiinun min addahri kii teg ko ci xiinum jële maamu saati illa kalam si déedéet ku ci nekk am na ci xiin joo ko teg pour bañ a wax comme luy dem la si na yonent bi woo leen ñu mu ne leen sadaqtu yéen yëpp wax ngeen dëgg xiina tumsuuna wa xiina tusbixuuna loolu la ko Seydina Ali wax yàlla ne xiina tumsuuna wa xiina tusbixuuna bii suba la bi ngoon la mu ne ko boo sawaree ci suba gi demal jël boo sawarul nag bàyyi ba ngoon nga dem jël sa jabar gars yi nag bi gën a yomba la ñuy def bi gën a yomb la ñuy def waaye ci ngiru imam Malik bii ku gëm El Hadj Malik gëm Serigne Touba gëm Limaamu Laay gëm Maamun Kunta Njaasaan woo nee sa jabar may naa la sa baat ñàkk nga ñetti fase la boo reyee it ne ko fase naa la téeméeri yoon wala fukki yoon ñetti yoon lañ koy considéré baada zaw ji ñu bees ñi nag bañ sukkandiku sama yoon newu ci ñoom fase daal fekk ma ñett danañ def très attention boo doon kaf ak sa ne ko fase naa la tàbbi na benn ngoo soo ko fase waatee ñaar ngoo a ko fase waatee ñett ngoo baada zaw ji at-talaaqu marrataani fa imsaakun bi ma'ruufin aw tasriihun bi ihsaanin loolu la yàlla wa talaaqu marrataani fa imsaakun bi maarufin aw tasrihun bi ihsaan yàlla ne na fase ñaari yoon la bu ñettee ñàkk kon nañ ci bàyyi xel bu baax Seydina Omar du ko tuuti waaw Seydina Ousmane tuuti uklaha kulla xiinin la jëloon kulla xiinin mooy at mu jot garab ci lay meññ mu ne yow diwén nga ci mën a jot kële yow moom yooyu daaru rek mooy yow man xëy na sax ndax kii xëy na tudd suuna waaye tudd bi xaw na mu seet ba ca gën a yomb mu jël ko muy xëy na tudd bi xaw na mu ne ko fi mu ne kañ ngoon jot na mu ne ko doxal tudd dem jël sa jabar dafa am ñu mënta fase boo mënta fase bul fase boo mënta bàyyee góor ku góor gi yow it jigéen bul ñaan baat. góor it boo mënta fase bul fase fase ba pare di ci toppaat ñër ñër ñër ñàkk fayda ñàkk fayda loolu fase ku ne nga téléphoné ko man kay moo ci ma ñàkk ba nga xamee ne loolu la doo ci fase ku ne woo ko man kay moom xanaa la ngay tàcc yaay seytaane bi ndax yaa yore yaa war a sàmm sa lammiñ ci sa dignité te xam ne kiñ la dënk àddinaa daje woon ñu may la waaye waaye boo amee ngor sax woon fukki nit ne leen dama ko bëgg a fase kenn ko am xel dina la ci génne waaye yow loo xam ne mbooloo ñu tax toog may la nga réew rek wax moom wax ñu gàtt rek ne ko fase naa la wala may naa la sa baat mais yooyu dafa ñaaw parce que yaa yor baat bi parce que rek yaa yor baat bi yomb na la rek yonent bi nee na booy kaf ba ne sa jabar fase naa la tàbbi na ñak nga benn nga boo ne ñaar ñaar boo ne ñett boo demee ci risaala Seydina Omar loolu la imam Malik indi boo nee sa jabar may naa la sa baat mooy lahabluka ala koy lay dafa loxo bu dogee mën nañ ko faj mu wér moog julli la doon wax boobu biir mën nañ ko xotti ñawar nopp mën naa dog ñu faj mu wér bakkan mën nañ dagg sax ñu faj mu wér tuñ mën naa dagg ñu ñawaat mu ne ay bopp na suuli leen bopp bu ñu réparé am na baat bu ñu dagg bopp fële jëmm fële ñu réparé waat ko mos ngeen ko gis ci kaw amul fen waaye ku ñu dagg noppam ñu fajaat ko am na opéré ñawaat a ngi tànk bu dagg ñu remplacé ko tànk bant sax am na léegi loxo bant am na yooyu yëpp am na waaye bopp bu dagg suuli rek kenn mosu gis ku boppam dagg ñu defaraat moo tax may naa la sa baat dara boo ne may naa la sa baat dara desatu fa nañ yar suñu lam rek bu ko defee nag ngir mu ne nga sonal nit ñi dem man ku fi ñëw ci ngiri Malick laa lay atte na ko xam fii du ma fi atte woo lu dul ngiru imam Malick ndax suñu sang yu baax yi ci loolu la ñuy atte neex nag demal fu la neex nga ku fi ne sa jabar may naa la baat boo fi ñëwee baada zaw ji la ko rey rek dana sa jabar fase naa la juróomi yoon ñetti yoon rek lañ koy considéré jeex boo ko bëggee nga seeti kon defaral sa jabar nañ nañ bàyyi tempérament yu ëpp yi ah, di xuutal xuutal ci biir kër di jaay almaa boo génnee xale bu tuuti di la foyee loolu rek fees xale bu tuuti loo am jox ko crédit nga koy jëndal lu la ci woo. li ma leen xam naa ko xale bu tuuti moo lay foyee ci ci sa la yóbbu fu ne te doo sañ a loo am jox du la woo sax téléphone ngay biij bi jëli ba def lu ne nga dugg jigéen gi ne boo génnee ci biti gis jigéen ju la jombal jombal mu ne duggaatal sa biir kër rek kan moo nekk ci benn waaw yonent bi moo ko wax mu ne boo génnee ci biti gis jigéen ju la jombal loxati sa bët mu ne di teg ko fa te sa biir kër xool sa soxna mu ne ki nga bàyyi ci kër gi rek moo ne ci mbedd boo amee fayda nag lonk ko ngeen ànd am nga jigéen lu mu gën a ragal nga ànd ak moromu jigéenam ci ci dem ñàkkee fayda fu mu dem ànd ak moom moom it daa bëggoon ànd ak moom rek loolu boo bëggee mucc del def noonu boo dem àndal ak soxna si koo romb nag muy bëgg a ñaaw si sonné ne sama soxna la man mi leen wax dama koy def élément la soxna si ci oto bi léeg-léeg du ma romb xam nga ba rek am na ñu ma romb man moom mën nee naa leen bu ma doon def lu bon sax war naa ko bàyyi ndax nit ñi mënuma làqatu fenn mënuma nëbbatu fenn cinq minutes fu ma taxaw ay nit fekk ma cinq minutes waaye ku ñëw ma ne la kii sama soxna la mooy ki nekk barab sàngam ndax gars yi dañ gaaw ci maa ko gis maan dëkk te kooku xaw ma xaw ma ko ci soxna yi man sama soxna yi mën nga leen xam ndax la mar la mari ci mbedd mi bëgg leen di xam su ko defee nag am na yoo xam ne yu bari ni da koy moytul boppam booy doxantu ànd ak sa soxna loolu la sariya santaane booy dem fu fu demu ànd ak sa soxna booy doxantu ci mbedd mi dañ bëgg nga te yonent bi dem na benn na la féetee ndey joor sax na na la féetee càmmoñ astaxfirullah ñu ne ko lu tax mu ne ndax ci faaru càmmoñ lañ leen bind te moo càmmoñ moo gën a jege sa xol gis nga yonent bi kenn du moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne booy doxantu ànd ak sa soxna na la soxna si féetee càmmoñ ñu ne ko lu tax mu ne ñaar a tax ñu ne ko ban ak ban mu ne ndax ci faaru càmmoñ lañ ko bind te càmmoñ a gën a jege xol gisoo lëng sax càmmoñ ci gën a dàq maa la ko wax lëng lëng ca jigéen gën a nekk à l'aise di ko tàpp tàppal la ko raay maa la ko wax bii la ko wax ci gën a jubu lekk ndeyjoor ci gën a jubu yàlla lu mu dox lu mu def noonu lekk ndeyjoor ci gën a jubu lëng càmmoñ ci gën a gaaw mooy ñi ci gën a gaaw ñu ne yonent bi lu tax mu ne jigéen ñi yàlla ngi leen bindee ci faaru càmmoñ te faaru càmmoñ moo gën a jege xol moo tax jigéen ñi di xoli góor ñi ndax fi leen bindee la te buñ fa delluwaatee rek mu mat maa la ko moo tax yonent bi ne ko am ko am soxna su baax sa genn wàllu dund rafet na yow rafetalal genn wàll bi ci des ndax fa mu jógee woon dellusiwaat na fa. faaru càmmoñ ñi boo déggee nag toujours ñu naan góor ñi dañoo manqué jigéen ñi dañoo manqué lu dëgg góor ñee manqué nañ ko defaat góor ñi la seen faaru càmmoñ manqué ah wala déet eh, jigéen ñi xamuñ ñu may dégg wala déet ah yéen may dégg jigéen waaw ah, kay góor ñi la ñoo manqué léeg-léeg nga dégg ko naan jigéen dafa manqué xelam dafa gàtt. ni ay weenam sa kii la la la xel bi sa ma man oustaz Massi la kan bii fi jógee moo koy wax mu ne benn jigéen benn oustaz da ko doon wax mu ne benn oustaz moo doon rey nit ñi rek jigéen xam nga dafa am oustaz yu bañ jigéen na ma yàlla baal ci seen nit bi ñu waaraatee boo ko gisee nag oustaz yooyu dañ noboon ku leen waaw affaire bi lii waaw da ngay nob la nob keneen ci jigéen ñëpp la jigéen ñëpp nekk say noon lii rek la yow saa si duñ bëgg seen morom dañuy seet xam naa ci dara jàngalekatu diine la kilifa la jàngalekatu diine la ci sant yu mag yi sax la ci réew mi ma bañu loon ñoo ñu xam kan la sant yu mag yi ci réew mi ci la man dañ ma yàgg a foyee ma nangu rek dañ ma yàgg a foyee nangu. yii nag Seydina Omar yeeg rek lenn ci yu bëri gis ngeen ñaar ñële toog kii nu mu tuddati baal ma si kii tuuti maa ngi lay xàmmee waaye waaw ah. waaw baal ma fàttali ba tur bi rek maam Cheikh waaw ana sëñ xaadim du xaadim la sëñ Fall waaw mu ngi ànd ak sëñ Fall ñii taalibe maam borom Touba lañ. ah yàgg nañ fee ñëw fii ci kër gi yàgg nañu ñëw ci xadara bi maam Cheikh mi ak sëñ Fall ñu ngi li ma leen di wax a ngi nii hmm? yàgg nañ fi ñëw samay wëllëre lañ ñu tey rek lañ fi ñëw sëñ Fall ak maam maam Cheikh yaa nag ana sëñ Xaadim waaw nga nuyul ma ko bu baax waaw nuyul ma ko bu baax sëñ Xaadim Mbàkke mooy seen kilifa ñun. li may wax rek yàllaa ko prouvé ñu ngi nii toog lii rek war na leen a doy suñ fi doon dégg lu leen di choqué wala luy xas lu seen am nañu pour nañu day ni duñ fi toog taalibe maam borom Tuuba moom xaw ma lan waaye fooy tuutalee sëñ Tuuba wala di ko jéem a tuutal buñ la mënta duma yëpp dañuy jóg dem suñ la mënee duma yëpp duñ la bàyyee ak nga wujjee ba nga nooy te a fayee sa sëriñ nga mën koo wulli wullil ba nooy nga dem boo liggéey dootu ko def waaw ah, wulli ko ba mokk rupp nga bàyyi ko fa def bul rey nag waaye dóoral ba bu génnee dooma ci njëriñ waaw ah, bul bul bu génnee balaa wax appat appat appat ne kenn ko dugg ci bu paree dootu la am njëriñ boo ko mayee soxna sax du jëmal dara tëj ko ba nooy rek nga bàyyi ko parce que dañuy fontoon nit ñi nag suñ mag ñu baax ñi li ñu fi def li ñu am ku leen ku leen ñukk la bàyyi leen ñu tëdd ci jàpp bàyyi leen ñu tëdd ci jàpp ñun li ñuy def xam nañu ko làmbatu wuñ kenn ku nekk fa nga jàpp fu dëgër la téyel ba dëgër kon li ma doon wax léegi loolu baa ngi maam Cheikh ak sëñ Fall ñooy preuve bi su ko defee nag ñun yii lañ gëm gëmuñu leneen nag fédéré yi laa gëm waaw ñëpp ànd kon waaw kay jërëjëf sëñ Fall Seydina Omar daal lu ne def na ko ci waaw masil la kan loolu la doon wax mu ne wa ustaas bi ñëw leen nii sëñ maam Cheikh ñëw leen nii rek sëñ xaalis kañ waaw Seydina Omar li sëñ Tuubaa ci Seydina Omar mu ngi ma xadiifat illaahi omar irda wa rut lii bihima tilka zumar mudda xayaati biridaa'i wa busr bil mustafa wa bihima rabbal bashar rutta alladi xasarani wa man amara lii fa anta zu tiqaamin bi umar jeex beneen bi ci topp ci Seydina Ousmane la ko def mu ngi nii mag ñëpp a xam saxaaba yi mag ñëpp a ko ormalul saxaaba amul dara ci yam ndax saxaaba yi ku leen desal ginnaaw di yéefal bu tooy xepp na ku desal saxaaba yi ginnaaw di yéefal tooy xepp sëñ Tuuba def na te wasul ci saxaaba yëpp rawatina xulafaa u raashidiin ñooñu moom ñooy pilier l'islam Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali ñooy pays de l'islam ku leen foyee man xaw ma koy téye xaw ma ko Seydina Omar mii nag lu ne def na ko ci diin Massi Lakan nee na oustaz boobu la nekk ci rajo bi benn conférence lépp lépp lépp jigéen ñi dal ci kaw jigéen ñi dal ci kaw jigéen ñi bu ne waaw jigéen sax moom ñoom sëg ni ni amul xelam dafa gàtt ne ni ay weenam sëggee la xelam sëggee. mu ne benn pànkum jigéen jóg taxaw mu ko ñun nga yab rek waaye yéen yéen a ñu gën a sëggale te du ngeen ko tudd. am ngeen ñu ko gën a sëgg te du ngeen ko tudd. mu tegal ko ca bi ñun suñuy ween ba buy sëgg yéen a tax. ah. jeex na ndaw si xas. Abdou Baax mu ne ko ñun suñu suñu mbos ci kaw la féetee yéen seen mbos ci suuf la féetee waaw mooy dëgg mooy dëgg xam nga wolof moo tax mu ne xamal looy wax waaye bul xam luñ lay ton waaw xamal looy wax rek waaye bul xam luñ lay ton te jigéen ñi yàlla leen may lam nañu sax woo xam ne buñ la tontoo doon naan sa café maa la ko bu leen yàlla xiiree ci rek ñu tontu la. di nga teg café gi di ko naan muy saf saabu maa la ko doo ca mën dara loolu yàlla leen ko may mu ngi mel ni rek ban ban wali yu la ku doon toog di bàkku rek lu ma waay laaj ma toll borom xam-xam di wali benn waay jóg ca gannaaw yëkkati loxoom ne ko sëriñ mu ne ko naan mu ne ko ndax yoo am na boutique mu ne daal la wallaay dafa jóg rek ne ko sëriñ nga baal ma est ce que yoo am na boutique mu ne daal la xam ñu tëpp tëpp tëpp tëpp mu jóg ne ko billaay dama doon bàq waaye nag xaw ma dara xaw ma am na boutique xaw ma amul boutique loolu lu may gis tuji la te moo ne lu ma laaj lu ma waay laaj ma toll te seetal loolu yoo moo la yàlla ne maa baaxoo dafa ba maa foo waxaa ci suratul baqara mu ne bàyyiwuma di leen misaalal di leen misaalal ba indi leen misaal ci yoo misaal naa leen ci yoo ak lu gën a kawe yoo muy gën yàlla bàyyiwul dara lam lay jàngal mooy lu gën a tuuti yoo sax bu ko xeeb ndax mbindeefum yàlla lu gën a rëy gëlëm bu la yéem ndax mbindeefum yàlla la yéemaleel gëlëm ak yoo loolu la la yàlla di jàngal boo ko indee ci nit ñi yemaleen ki am ak ci ñàkk ndax ki am yàllaa ko ko nattoo ci ñàkk yàllaa ko ko nattoo yemaleen ki am ak ci ñàkk moom la El Hadj Abdoulaye daan wax ne Seydou Hadj Malick daan la wax ne doom fexe leen ba bu leen xàmmee ki leen nuyoo téeméer ak junni bu ko xàmmee mukk mu bu ngeen ko xàmmee addina tukki ki la nuyoo téeméer ak ki la nuyoo leen xàmmee mukk kenn boo leen xàmmee addina tukki. léegi nag moom waxuma xam ne waaye VIP sax lañ ko tudd taalibe VIP ngay dem njënteem ngay dem dëjëm ngay dem takkam ngay dem ngay dem ngay dem waaye non VIP moom bu la balaa laa gis sax àddina waaw loolu nag yàlla na ci yàlla musal kooku mooy Seydina